koo xam ne Sénégal ñor na la ci loolu na gar mooy di artu régime bi di leen wax la ñu war ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw complot bi nga xam ne Macky Sall wax na ko dem nee na complot complot boobu nag ña nga xam ne ñoo ci nekk ci ginnaaw lañ ñu jéem a wut ay pexe ndax pexe yooyu ñàkkuñu ko ngir jéem a xam ñan ñoo nekk ci complot boobu ñan ñoo tax Sénégal fi ñu nekk nii ñetti semaine a ngi nii ñu war a wax ci li ñu war a def ba suñu économie gën ko soqaliku ñu ngi wax ci affaire vert loolu li li li nit bëgg ñu wax ko li bëgg ñu taxaw ci mooy naka la ñuy doon yore réew mi naka la defee élection ci loolu loolu nag moo tax ñuy def diversion kon FRAPP Dakar ñu ngi woo réew mi di woo ñi nga xam ñoo jiite réew mi ñu xoolaat loolu ñi nga xam ne ñoom lañ di jiite justice ñu xoolaat seen taxawaay ba nga xam ne dossier bi ñu teg Euh, demande d' mooy déclaration d' autorisation bi nga xam ne de marche bi nga xam dañ ko waroon amal tey ñu gis ne préfet démb ci guddi mu yëg ko aaye waaye ñuy xamal askan wi ne si constitution Sénégal ku ne ci ñun am nga droit soo amee loolu naqari nga dug dox ko constitution moo ñu ko may depuis 2001 Abdoulaye Wade indi ko fi kon loolu ñu ngi koy rappeler Sénégalais yi ne li préfet bi def teguwul ci àq teguwul ci yoon te nag du ñu teree li ñu war a def nañ ko def ci loolu. tey si suba xëy nañu déposé waat beneen demande de marche boo xam ne incha allah mardi dañ ko fas yéene amal fañ koy defee mooy place de la ndaxte Sénégal amul fenn foo xam ne nit war na mu doxi ñàkk loolu ñu ngi koy yëgal ñëpp déposé nañ ko tey si suba te incha allah mardi dañ ko def loolu weesoo yeneen marche tamit danañ ko defaat ndax tànk ñi nga xam ne ñu ngi jël suñuy doom di leen kidnappé di di salfaañe seen ak ak seen yelleef dinañ danañ ko xeex te nañu ko yoon mayee lépp lu ñu yoon may dañ ko jël rawatina droit bi nga xam ne moo gën a élémentaire mooy droit marche kon mardi dinañ marche ajjuma tamit dinañ te ñu ngi woo bépp koo xam ne kuréel nga wala mbootaay nga boo xam ne Sénégal dara ñor boo xam ne nañuy salfaañee suñuy àq ak suñuy yelleef naqari na la ñu ngi lay woo ci xeex bi di woo bépp jeune di woo bépp bépp jigéen ci xeex bi nga xeex bi képp suñu moytuwul ku nekk sa kër dañ la fekk ñu ñu ngi koy fàttali nit ñi di wax tamit ne ah li nga xam ne mu ngi raam ñu ngi koy yëgal ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew mu ñu naan organisme internationaux yëpp di ko wax ambassadeur yëpp di wax ne kat war nañ wax ñi fi ne ndax fa ñu jëm moo fi amoon ci yenn réew lu mel ni kii ni ku mel ni Blaise Compaoré nga xam ne ku mel ni kii ni Ben Ali bi nga xam ne newoon na fi ñoom ñëpp nag dañuy xam ne Sénégal dëkk yooyu Sénégal dëkk la boo xam ne nit ñi depuis 1880 ñu ngi ci démocratie te duñ nangu mukk kenn koo xam ne ñoo ngi 2012 ba tey lay wàññi loolu la ngay dox kon ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy artuwaat di wax ne tam nit ñi du ñu dellu ginnaaw fenn du dellu ginnaaw te nit ñi du ñu ay ragal wasalaam. waa di wax ne il foog ñu xam lañu suñu àq ak ñu yelleef suñu réew Sénégal tali bi nekk Gueule Tapée gënul yées bi nekk parti Sénégal tali bi nekk bi ñoo na gënul yéen tàmbale fépp foo xam ne si territoire la la bokk ku ne si ñun am nga droit déposer sa déclaration de marche fa looloo tax nag ñun gisuñu lu tax foofu yow la ñu koo marche du provocation texte la loi la suñu réew moo ñu ko may merci beaucoup oui. Et euh, si euh, la, la marche est encore euh, interdite pour faire comme de Bon, vous savez que le Sénégal, nous sommes dans un pays de déclaration. Ce qui veut dire que le préfet de Dakar, il n'a pas le droit de nous interdire la manifestation. Parce que c'est notre constitution qui nous donne l'autorisation. Maintenant, frappe Dakar et PASSEF Dakar Nous voudrions que le préfet de Dakar, qu'il nous écoute. Macky Sall, il doit arrêter ce qu'il de faire. Interdit ou pas, le mardi inchallah direction palais. comme ni nga ko waxee dañ taxawaay ngeen fas am beneen question bi nga am politique yan kër gi ñu na seen liquidation politique. waaw li li may leeral loolu ci ci ci wax ne euh, liquidation politique démb dégg ngeen moo bi président Macky Sall wax ko ci benn ci tas xibaar yi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew loolu rek ci li may fàttali mooy day wane rek ñàkk naw gi mu naw tas xibaar yi nekk ci réew mi mooy yéen ñuy jàkkaarloo ndax lu jëm ci réew mi soo koy wax da nga ko waxal ñi nga xam ne ñoo fi ne waaye moom seetlu nañ ne saa yu bëggee wax dara rek mooy Sénégal suy wax ak ñoom day jël taskati xibaar yi ci bitim réew lay jël pour wax moom moo yëkkati moo boobu ndax ku ne complot ñu dégg ñu lim ci ay responsable yoo xam ne dañoo bokk ci bennoo tas yaakaar maanaam bennoo bokk yaakaar ñu dégg leen ñu ñu wax leen ci te ñu xam ne ñoom ñëpp ak ñeneen ak leneen ak avocat ñu fi si ñu fi ñu yëpp bokk ci nguur gi moo tax kon mi preuve yi day sëkk pour xam ne complot la kon loolu euh, day jaar ñu xamalaat ko sénégal yi ndax xam nañ ko bu baax a baax. jërëjëf par rapport ak arrestation taxawaay. benn lii ñuy def nii ci taxawaay la bokk marche bi ñu waroon def muy marche pacifique mooy jug xool la nga xam ne suñu àq suñu yelleef la suñu constitution may ñu ko.

Nous demandons à tout Sénégalais de se tenir debout, prêt par rapport à ce complot qui est orchestré par Macky Sall. Nous attendons maintenant, s'il décide de le faire, le peuple sénégalais va prendre ses propres responsabilités. Tout citoyen sénégalais épris de justice fera face à cette injustice, sera face à ce complot orchestré par le régime de Macky En tout cas, nous demandons à tous les Sénégalais de se tenir prêts. C'est ce que j'ai à dire, de se tenir prêts par rapport à cette injustice. Merci beaucoup. Une réponse particulière à cette question. Moi, j'ai demandé à tous les Sénégalais, épris de justice, dans toutes les coordinations régionales, toutes les coordinations départementales, toutes les coordinations communales, dans toutes les sections, dans toutes les cellules du dans toutes les rues et ruelles de ce pays, que les gens que, les gens se tiennent prêts. De toutes les façons, si Macky insiste pour amener Ousmane Sonko en prison, on va résister. Et qu'on nous, nous dise pas que nous avons fait une insurrection, que nous avons fait une désobéissance civile. Ce n'est pas le cas. c'est juste une résistance. Résister. Ils veulent incriminaliser, la résistance. On va résister. S'ils veulent qu'on résiste, on va résister. S'ils reculent, en tout cas, qu'ils se, qu se, le tiennent pour dit. De toutes les façons, il y aura résistance sur l'ensemble du territoire, que tous les Sénégalais se tiennent prêts. C'est ce que j'avais à dire sur Merci beaucoup.